ñaar fan ci weeru avril 2024 muy date boo xamante ne dafa màndargaalu gannaaw ëllëg si rek ñu war a féete suñu indépendance bu Sénégal njiital réew mi Macky Sall nag si discours yi nga xam ne daf ko mujjee def yëpp doon tàggatoo jëmale ko ci askan bi ak ci waa Nations Unies ak suñu gan yi nga xam ne ñoo nekk fii ba si sax yi jóge bitim réew nekk fii yooyee yëpp daf cee wax ne dafay kit ne dafay jóg ci bopp nguur gi ñu organiser ay élections yu démocratique te jaar yoon te transparente waaye nag si ginnaaw si commission d'enquête parlementaire bi nga xam ne moom moo ñëw dafa mel ne dafa daal effacer lépp loo xamante ne Macky waxoon na ko ndax dañoo tënkoon ci constitution bi jàpp élection yi ci weeru février bi ñu ko jàppoon na commission d'enquête parlementaire bi dina tax Macky Sall nag nar fee toog fii ba fukki fan ak juróom ci weeru décembre waaye li leer moo di ne ñaari fan ci weeru avril atum 2024 président Macky Sall dina nekk njiitu réew boo xamante ne moo fi samp boppam dina doon koo xam ne dootul am benn légitimité maanaam toogeewu fi ci bëgg-bëggu askan bi ndax ay démocrate ak ay patriote d'accorduñu ci ni mu doxalee Macky Sall day nekk ci bëtu ñi mu àndal koo xam ne daf leen a wallu ñoom waa majorité bi ngir ñu mën fi toogaat waaye li leer moo di ne crise de gouvernance démocratique ak crise ci wàllum institution yi dina dugal Sénégal ci guuta boo xamante ne dëkk bu yëngu la nar a doon li gën nag mooy ñu sóoraale lan la loolu mën a jur munta ñàkk bu fekkente ne Macky Sall delluwul ginnaaw ci dogalam fagaru moo gën faju te lii raam ci ñag ba la jëm faw nag ñu nangu li nga xamante ne moom la askan bi bëgg mooy dem ca mbañ gàcc ga ci bu mu waree tànn beneen njiitu réew te li gën a wóor moo di ne acteurs politiques yi ak waa société civile yi gëw ma ci atum 2024 bi ñu am ay déggoo bàyyi Macky Sall muy toog ci bopp réew mi doon président ba tey li wóor moo di ne liy raam ci ñag ba la jëm te crise bi nga xamante ne mooy yoot Sénégal bàyyiwul xel dina dugal réew mi tàmbalee ñaar fan ci weeru avril bii di ñëw ci guuta boo xamante ne mosu koo dund